yonent bi ma min muslimin yadu llaha bi daawatin fiha ismun wala qatiatu rahimin illa aataahu llahu biha ihda thalath imma an yuajjila lahu daawatahu wa an yaddaxiraha lahu fi laxirati an yasrifa anhu min assuui mithlaha qaalu idan nuksir qaala allahu akthar ba mu ko waxee ah, allah danañ fas nañoo yéene ñaan lu baree baree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 yonente bi moo wax ne yàlla sàkk na ay malaaka yoo xam ne dañuy wër rek képp ku julli ci yonente bi sallallahu alayhi ñu jël julli googee jottali ko bi alayhi salaatu wasalaam te julli ci yonente bi day sippil nit ki ay ñaawteef di ko yëkkatil ay darajaam ndax yonente bi moo ne ku julli ci man benn yoon rek yàlla dana julli ci moom fukki yoon sippil ko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 bokk na ci li ko suñ boroom defal muy ay jagleem mooy nangu gim ko ko nangul wax ne qabila rabbul aalamiina kalimi wa sarra xayral aalamiina qalami suñ borom subhaanahu wa taala nangu na ay baatam waaye yonent bi alayhi salaatu wassalaam it day ci mbindam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 koo xam ne ma ngi ko tukki hada min allaahi ila naazimi alqasidati haadihi qataan ne haajat qasaidi quluub alxamala lil arshi wa hiya busharun lil kamala malaaka yi yenu aras sama xasida yi da leen di bégloo waaye day bégal mboolem wàllu yàlla yu mat yi na ci jagle mooy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 yuusilu xatti man ahaba lil ilah bi gayri xalwatin wa yakfi kulla la kon képp koo xam ne am nga yitte ndax sëriñ bi buy wax yuusilu xatti da cay boole melokaanu kamuy yóbbu mooy man yuridu kon ka am iraadab jege suñu borom subhanahu wa taala am iraadab defaru kooka moom yuusilu xatti man yuridu tarbiya ki nga xam ne it dafa bëgg suñu borom subhanahu wa taala ne yuusilu man ahaba